dirigeons diriger Sénégal. Euh, euh, émotion bobu ngay euh, encore une fois c'est vrai que mom lañuy faral di wax ni sénégalais dañu dans l'émotion mais je pense que dans des cas pareils waruñu dit émotion. Euh, parce que dafay nek lo xamantene ni dafay soxal intérêt réew mi et je pense que euh, su intérêt réew mi mhm. euh lépp lo xamantene ni dafay euh, euh c'est-à-dire intérêt réew mi moom supérieur ak lépp si lépp loo xamante ne dafay taxaw mhm. donc dans des cas pareils dafay baax ñu jël yëf yi au sérieux jël ko ak diplomatie mhm. jël ko également ci lo xamantene ni dafay dem dans l'intérêt supérieur de la nation ak intérêt nit ñi yëpp mooy li wax euh, démb ni euh, le discours à la nation comme ne ko Pape Doudou waxe sank mënoon na ñak euh, waaw mënoon nañu bind benn message rek benn tweet wala benn genre yooyu noonu wax ko au-delà de yàgg bi sax mhm. euh, c'est-à-dire bi ñu nee le président va s'adresser à la nation sénégalaise dañu yaakaaroon ni mhm. bu président waxee le citoyen lambda c'est-à-dire le sénégalais man ak yow mhm. dinañu gis suñu bopp ci li nga xamante ne nii moom le président di wax mais malheureusement li xew mooy euh, bureau politique politicienne la mm-hmm. c'est-à-dire ah. lo xamantene ni, nous ñom politique yi mm-hmm. ñom ñoo ci la ñom la concerné mm-hmm. waaw euh, président euh, président génn di à la nation je pense que génn ci yenn ci ay mbir dafa soxal askan wi ñoo immigration clandestine wu na dem na proposé comme solution du solution xafante dëgg loolu du moom mooy résoudre le problème euh, waaw mhm. yoole yoole mhm. loolu du solution euh, euh, problème yokkute gi am ci dund gi. Mhm. ñi ngi koy waxtaanee son premier ministre joxe woon na li nga xamante ne ni moom mooy orientation yi en en conseil des ministres wax ne dinañu def évaluation mais comme le ñuy wax évaluation dafa am lu ko jiitu muy suivi mhm. euh, je pense que l'eau ay mbir la yoo xamante ni nii dafa soxal directement askan wi mhm. ñoo ngi wax waxu problème ou insécurité ñoo ngi wax waxu problème ou xëy en ñi je pense que yooyu yëpp ay sujet la yoo xamante ne nii euh, dans l'adresse à la nation euh, beaucoup de gens s'attendaient à ce que mu ñëwaat si surtout ci la politique bi nga xamante ni war na pour la jeunesse sénégalaise mhm. surtout ci dundin ak nekkinu askan wi mais amna ci également ay propos yo xamantene ni le président euh, le le le premier ministre Ousmane Sonko daf ko waxone euh, ci yenn ci ay jamono wax ni ñom biñu ñu leen di jox état bi l'état dafa nekkoon en ruine. c'est-à-dire lu may wax tout le temps mom moy c'est c'est-à-dire c'est facile de génn taxaw wax ni tel tel tel nangam ak nangam li mo xew. Mm-hmm. mais li ngay wax ana lan mo koy justifier. mom mm-hmm. dafa waxone ni que le président su génnee justement dina wax ci euh, état bi ñu jotee réew mi. Mhm. ak détails yooyu noonu yëpp mais président li mu wax moom mooy mbiru politique. Mhm. wax également ci li nga xamante ne ni moom moo di la gestion des deniers publics. Mhm. ay dinañu traquer ak affaire yooyu noonu mais l'essence ci boppam c'est-à-dire ponk yi nga xamantene ni ci lañ ko doon xaar mhm. ñëwu ci et je pense que loolu moom moo gënoon nekk priorité mhm. instant yi surtout période bi ñu toll mhm. ay milliers des milliers et des milliers de jeunes di périr ci euh, océan bi euh, pour man occasion la woon pour mu waxtaan justement ak ndaw ñi donte euh, ci côté stratégie wala ci côté mécanisme yu ñuy teg pour justement essayer de retenir cette jeunesse là au pays bu fekkente ne sax amul mu def discours boo xamante ne nii ça va dans le sens de sensibiliser cette jeunesse là mhm. pour que ñu bañ a dem jël Méditerranée bi mhm. di xaru mu euh, encore une fois euh, wax loo xamante ne nii tey euh, askan wi dinañ ci gis euh, seen intérêt mhm. mu wax loo xamante ne askan wi dinañ ci gis seen intérêt je pense que loolu lañ doon xaar ci sortie président mu wax loo xamante ne dina jëriñ askan wi wala mu jël ay solution wala sax mu def wax loo xamante xamante ne dina dalal xelu euh, jeune sénégalais ba du ñu euh, jël gaal gi yu ni mel ne dañuy euh, génn réew mi nous sommes mhm. Mhm. dafa mel ni honorable Moussa Diakhaté mi ngi en ligne mhm. oh, waaw honorable Moussa Diakhaté Moussa Diakhaté waaw dafa honorable Moussa Diakhaté moom it dafa bëgg a wax ci ponk yi ñuy waxtaanee tey ñu jéem ko jot rek honorable waaw allo honorable ñu ngi lay ziar bu baax honorable Moussa Diakhaté la yaa ngi en direct ci euh, Diaspora News TV Oui. waa ñu doon waxtaanee nag euh, dissolution wala boog décision bi nga xamante ne ni euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na dissoudre assemblée nationale yow nga nekk ca pencum ndaw réew ma nekk fa ndaw lan mooy sa lecture ci li nga xamante ne ni moom moo xew bon lecture moom mooy la ma waxoon rek su dee yéen a ngi suivre samay sorti ci mhm. assemblée nationale mhm. nii dañu fal ñuy foo ñu mënul mhm. nanguwuñ ñu mënuñu di fooye askan wi li yëpp lan moo ko waral ñàkk am programme boo wan Sénégal lan moo ko waral ñàkk am fit wax Sénégal yi dama leen doon nax yoruma programme ñu ngi koy jéem a taaba taaba bind waxoon naa leen ni Bassirou Diomaye fay dafee ne nii rek ci figure mais si Ousmane Sonko ki décide loolu yàlla def Sénégal guddiñ toll far nag du tee ñi mi dëkk. bi Ousmane Sonko génnee wax ñu ni conseil économique social et ak seen seen patron yi du ñu fanaan ndax fanaan nañ ca ngoon nga lañ leen dàq. Mhm. ba bu mu génnee la waxoon ne leen assemblée nationale bi du yendu le douze du ko weesu. Mhm. weesoo ko li ñu métti nag mooy président de la république bi bi ñuy nax bi ñu dul wax dëgg te président nag amul lu dul kàddoom ak signature am suñ demee ba président de la république waxatuñu dëgg di nax askan wi waaw mm-hmm. mënatuñoo jiite ndax dañ koy xaar pour mu wax ñu dëgg mm-hmm. bi muy jàpp le treize xamoon na ni la douze day tas mm-hmm. te soxna si fi réew mi toll waaw booy tas baax na li nga dégg ci dee ci mbuur mm. li nga dégg dee ci oto yi ndax rafetuloon sama jaale leen. Mhm. masawu njabootu ñooñu fa jóge il les a royalement ignorés. ñaata doomi Sénégal la ñuy despot jógee bitim réew di ñëw ci waa diaspora. Mhm. te ñoom de buñ toogee fii. su weesoo ndogalu yàlla war nañoo sant jeunes yi ak diaspora. Mhm. ndax ñoo porté yëpp bañ falu. ndax ni lañ leen doon wax buñ faloo def ko. waaye bañ fare dañu changé completement ndax Sénégalais yi. mel sunu réew mi jomay mom war na ni li nañu doon ruumandaat deug la mom du ci lenn moom dóorul fayul Ousmane yi wax mu def waye nak yaakaar na ni sénégalais yi la yalla bëgg motax mu tel len wan ñi ñu jàkkaar lool avant ñuy dem élection mm-hmm. législative parce que ba tay fiñ toll décembre ngeen di xaar mm-hmm. pour ñu wax len projet bi décembre kenn mënu la wax Sénégal fiñ toll natt bëcëk te xamoo koy nat si ak ko dul nat si xamoo fu nu jëm dañuy tëñax tëñaxi rek moo kalandoo buy dem la mm. kenn mun la wax lii lañ natt ci mbay mi lii lañ natt ci sàmm gi mm-hmm. lii lañ natt ci diaspora bi kenn mm-hmm. kon ne peut te le parce que en réalité bi ñuy wax ak ñun amuñu projet bi ñuy wax ak ñun dañ doon naxe bi ñuy wax ak ñun ñi woon ci bluff bluff boobu lañ campagne nax nit ñi ba falu bluff boobu lañ bëgg gérer mm-hmm. réew mi ay yoole ku wax ñu yoole laak ay yote yoote nag mooy naxante bi mu président di def mm. ak askanam yéen mo wax len deug waxu len deug di jouer parce qu'en réalité mom il n'a il n'est qu'une figuration il ne décide absolument rien <coughs> alors euh, am solo euh, Moussa Diakhaté ñu ngi lay euh, gërëm bu baax baax merci beaucoup ci intervention bi du ñak ñu dalal la fi ak ay fan yu néew ci Diaspora News TV ndem somna suñu borom diaspora moom lépp lu ñu soxla ci man mo wuy ci len ci ndax dama gis yi inshallah allah merci beaucoup. Mm. Oh, oh, oh. Waouh,